ne kon ay jeune li nga ni moy y avait 3 hectares plus 9 hectares plus 2 hectares soko calculer que c'est 11 hectares hectare yoy nak ñun 3 euh, hectares pour nous de li nga xamné bi nguur gi passé ñu jël hectare yëpp lotissé ko joxe nañ ci ba ku ne xam kenn mënul xeex ak état mu des li nga xam fa mu nekk euh, trois hectares yu yëkkati jox ko li nga xam ne mooy et le maire nous a confirmé que loolu am na bi ñu waxee loolu mu am benn collectif boo xamee ni moom dafa nekkoon taxawaay mooy lan xool lépp loo xamee ni Saly moo ko moom te jaaralewuñu ko ci yoon mu jéem a taxaw ba loolu delluwaat ci loxo waa Saly collectif boobu nag bi mu demee ba nga xam ne nii ne sab ko xam na ne nit ñi dañoo xale yi dañoo jàpp ne ko benn ah ñu woote réunion boo xam ne ni am nañu woo ci ñun ñi toog ñooñu dañ ne duñ dem man mi personnellement dañ du dem parce que problème buñ ko régler ci lii bi lañ ko régler am ci collectif bi le président ak d'autres personnes ñu dem à notre à notre insu bi ñu nak wax nañ ñu lañ fa jël jox nañ leen employé mais 1 million bi ñu leen waxon sax waxuñu lolu indi ben jaxasoo suñu biir ñu tok ci waxtaan ah d'après man ma dégg c'est nañu loolu nga xam ne employé yi ci seen biir man je me suis retiré avec d'autres personnes ñu xeex ci xeex ci son sonn mënuñ ci dara ku ne xam état mu am un directeur boo xam il est là bi ñu ñëwee dafa mel ni moom dafa xabtal parce que li nga xam hectare yooyu xeex nañ ko vingt ans kenn mosu ko laal Abdou djouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Macky Sall bi mu fi jaaree nag avec avec euh, Souleymane Ndiaye moo destitué

nous sommes là nous la preuve nous commencé de presse la police nous sommes des nous sommes des gens civilisés nous sommes des jeunes aussi civilisés nous sommes des jeunes aussi qui sont conscients Nous sommes conscients nous sommes conscients Nous sommes conscients nous xam conscients, nous sommes conscients nous Nous sommes

pour que le changement am pour li nga xamné ne suñu rongañ ñeneen ñu ko fajal ci ci ñu créer li nga Debout sali Debout c'est apolitique comme bi suñu première sortie lañuy wax c'est purement simplement li ci Ils yomb moy dañu bëgg hectare nga dañ ko jël jox ko ay nit arrêter

moy suñu alal te dañ ko on a un problème d'espace. espace am espace nag waruñu dugg ci sa biir sa commune quand même di jël ne sax dañ ne euh, li nga xam ne terrain terrain yooyu nga xam muy hectare dañ ko jël jox ko ki nga xam ne nii mooy domaine impôt domaine bu demee xanaa bu demee bay jaay kay du ko delloo ki nga xam dañ ko jël ci loxo te loolu moo am loolu nag ñu ne ñun dañ ko

moo waa Saly ñooy dëkk lii nga xam ne nii mooy hectare bi ñu ko ci ñaan moom tamit ñu def des arrêts de travaux ba ñu toogaat waxtaan trouver un consensus bi nga xam ne nii dana baax ñii ci population yi dina baax moom mi fi toog dina baax aussi ci président de la république